di leen sant ci turu kilifa yi nga xam ne ñoom la sëriñ bi di leen liggéeyloo liggéey bii nga xam ne mooy dimbali waa Touba ci ñu ci situation bi nga xam ne nekk nañ ci loolu su ma ko waxee dinaa tudd Touba ci kanam Touba ci kanam sëñ Habibou Mbacké jiite ko Hizbut Tarqiyyah man maa koy diriger Euh, bu ñu jëlee commune de Touba commune de Touba sëriñ sëñ sëñ Babacar Mbacke mi moom moo représenté maire la dafa génn rek waaye bu doona loolu moom mooy toog fii fekkee ko waaye ba noppi yoraale fonction responsable financier bu comité bi kon euh, ci turu structure yooyu euh, dam leen di jottali ak cant cant gi dafay jëm ci seen activité maanaam seen promptitude ci réagir ndax bokk ngeen ci institution yi nga xam ne wax dëgg yàlla ci ñi fi njëkk ñëw ngeen te li ngeen indi it mu doon loo xam ne bés bu seen ñu jënd ko <laughs> kon soxla la fi ndax fi moto pompe yi ñuy groupe moto pompe yi ñu yor ñuy évacuer ndox mi gasoil lay utiliser wala essence dëgg tey jii oto yi nga xam ne ñooy dem di intervenir dañ koy soxloo chaque jour daanaka mën naa ne ñun diggante mille litres ba deux mille litres yenn saa yi la ñuy dépensé par jour donc parce que Touba dafa yaatu. moo tax kon cant gi ci wàllu jëf ji euh, amul fu mu yem. ay geneen cant gi mooy li ngeen wax ñun ñëpp sénégalais dañu xam ne euh, sëñ Touba dafa fonk qualité te total day liggéey ci qualité. loolu nag moom geneen cant la defe naa ni nga waxee. ba nekk seen essence day sàmm moteur yi. loolu du tey ñun xam nañ ne total. am na process bu muy def boo xam ne ci ni muy gérer sax ay ay ay ay ay ay gérant bi ni mu leen di sélectionné ak fi mu leen di jaarale ak ni mu leen di formé ñun yàgg nañ ci xam ne loolu euh, doon na loo xam ne lu am solo la am réew da ngay fonkaale qualité mm-hmm. qualité euh, moom la sëñ Tuubaa yeeyoo mm-hmm. kon di leen sant di leen gërëm euh, sëñ Babacar Mbacke kon ñu jox ko cëru mu réceptionné li nga xam ne mooy li li لسالك المريد وجنة من